ñaata salaire lañ fi yokk ci ay presque deux milliards ak quelque postes yi ñu joxe appel à candidature yu dara amu ci jël ñoo xam ne ay rapport la ñu woon ñii dañ daan taxaw ci concert yi di si meeku di def yaramu neen ñu jël leen nome leen d'accord kaaw kilifa man dama ci ànd parce que xam naa ko ñu bokk benn koñ Kaolack mbisaan xam naa njàngam niveau fu mu yegg parce que nag fal doo xool comportement ba nit ki waaye nag dafa am loo xam ni kàddu yu waroo fi dafa bari c'est dans l'une sénégalais nañ jël seen engagement te yéen am ngeen ci ay part yéen journalistes yi te ngeen bàyyi par parloo yi waxuma yéen de waaye dama ni invité nit ba pare far fi nga far di ko loolu baleen ko tey ji yéen yàlla dogal ni yéen bu ngeen waxee nit ñi dañ leen di déglu chaque jour yéen a ngi def ay direct du matin au soir bala ngeen fi génn mooy dañoo wax asalaatul xayri wala timis passé na tey ji lu ngeen di wax sénégalais yi am ngeen jaay paar kay <laughs> li yëpp yéen ñëpp koy daj yow donc lu ngeen wax ak sénégalais yi noo doon loo xam ni na lu wér te ngeen xam ni na ngeen jël seen ma bu leen fi jox benn parti au pouvoir majorité dem leen ngeen billaahi wallaahi taalaay sama audio yi nag su ngeen ko defee yaa ngi campagne en bu yëf yi jàllee te heure bi jot wallaahi azim billaahi di ngeen rëccu d'accord lu lu projet bi fi jàll projet de loi bu fi jàll na ngeen xam ni yéen la te bu ko fi kenn kaas d'accord léegi léegi léegi léegi léegi léegi campagne léegi xaw ñoom li ma jaaxal si ñoom ah. Mouhamed te Aliou te boo ko waxee ñu ne la Sonko nga faral wala naa nga faral man dama lay rappeler en quelque sorte l' inspection générale des finance UGF ñoom ñoo jox rapport yi nga xamante ni moom mooy président Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye moo moo daal di yónnee ñi nga xamante ñooy IGF IGF defal ko rapport yi tegal ko si table bi maanaam Ousmane Sonko lu mu nekkoon di wax yëpp rapport la boo xamante ni IGF moom moo ko moo ko moo nga xamante ni moom mooy suñu ministre bi yor wàllu euh, wàllu économie bi donc lan lan moo fi bees finalement léegi beneen côté bi aussi yow sànq bale yaa ngi def loo xamante ni xëy na sax ñun ñoo la ko nangul waaye nag waruñu la kaa nangul parce que yow yaa ngi propagande depuis sànq ba léegi te léegi loi bi da koy tere campagne bi ubbeeguñ ko nga toog fii di def sa campagne yi en direct nii. ñun <laughs> am heure bu dafa am campagne bi war a démarrer heure boobu à partir de zéro heure. sondage yi am na ku bind ci commentaire yi mu Sénégalais leen joxee ñii majorité dinañ bloqué réew mi man da xaw ma du a bloqué de. waaye nañu mm. xam ni daal. Mm. lu ci waaye sa engagement am na koo xam ne sax moom xam nga ñoom ay saaga ak ci lañ man sama yoon dem ci <laughs> ma neex laay wax voilà mais en tout cas daal am na ko naan. léegi ma dox ki wax wax ki wax waxu bloqué. xoolal gi moom lii la ko mais ko waxu saaga moom Mouhamed ak internet yi ñooy waxtaan bi ñu doon nii. ñoom fi mu ne nii ña ngi xam nga mooy problème euh, mi ma damaa defe nii xamul lu ñu naan nattu mujjug jamono ñun la njëkk a fii li naan tukki <laughs> Sénégal la njëkk am na benn mag bu naan Amérique lay déparé waaye Sénégal gi lay déparé mooy lii ngeen commencé dund. billaahi wallaahi xam nga ku repp ci xare loo jiiñ da nga koy xeeb fi mu ne nii ñii di wax ñëpp pare gu leen de yéen waa jox leen majorité. léegi euh, wa wa Waly Diouf Bodian bi ne Macky dafa bëgg. Euh, dafa bëgg a dugg ensemble euh, jaare foofu mën a dellu ci réew mi ak yu mel noonu waaye chambre 48 la ko yóbbu rëbës nee na nag na xaar ñu yóbbu ko chambre 48. man Waly Diouf Bodian xam nga man man waxi théâtre yooyu man du ma ci wax yow ki yor parti am taxawal ko. yàlla jox ko nguur fukki at ak ñaar bi muy ñëw di jël réew mi boobu kenn xalaatul woon ni dina dem deuxième tour gagné président Ablaye Wade te Ablaye Wade moo ko defoon premier ministre mu ñëw yor réew mi yóbbu ko tey fii mu toll nii yow nga ñëw bokk ci nguur télé mënu leen dara manipulation chaque fois di wax loo xam ni dara amu ci nga naan ay Macky Sall Sambour 48 ban Sambour 48 Sambour 60 sax du fa dem. Hmm. Macky Sall yor parti di ñaan yàlla am majorité bu ko amul it ñaan na yàlla am ay député yu ko nekkal ensemble parce que parti la yor parti am deewul mooy tête de liste jël ay nit teg leen fi bàyyi leen ci réew mi pour ñuy liggéey moom waxoon na dafa nii bépp nguur gu fi mës a bu fi mën a toog su élection yi jàllee duma la jeune ak ku mën a doon. en général day am yenn pays yi su nguur toogee keneen ki nekk fa depuis président Abdou Diouf ba tey da ngay génn may kenn ki mu toog pour nga bañ ko gêner parce que day yomb pour nga gêner ko nee na nag boo ma laajee sama xalaat ma wax la gis nga nomination yi ñu ko defal fan bi mujj bi fan yi passé donc tànn kotu daal xam nga fa lay mujjee ay jarax waaye bu ñëwee ñu yóbbu a chambre 48 Macky Sall jëm élection législative yor parti ñu war a xeex pour am majorité bu ñu ko amul tamit yor ay am fa ay député yoo xam ni ëllëg lu ñuy voté pour réew mi ndox dinañ ko def am na ñu ne lu ñu jox majorité pour lu ñu fi bëgg a voté ngeen bloqué ko lan la ñuy bloqué loolu mooy argument arme bi ñuy wax lan la ñuy bloqué. mais boo xaaral député bu ñu ko falee xam nga dafa jeex pour intérêt bopp dafa a képp ku yor nguur waratuñ la jox majorité assemblée dafa jeex pour ñuy voter pour ñuy pour ñuy demee intérêt toog naa bi sama intérêt laay xool dama war a defar suma affaire loolu daf fi war a jeex ñun bu ñu wax pour askan wi ñuy wax donc tey député bu mën a doon ak foo mën a bokk lépp lu ñuy voter assemblée dañ ci war a ànd bu fekkee njariñu réew bi la waxuma nag loo xam ni bu ñu ko yëgee day day day doon loi boo xam ni projet de loi boo xam ni euh, ñu ko voté fii daf ñuy jural musiba duñ ko voté waaye loo xam ni dafay yóbbu réew mi ci kanam bépp député ak foo mën a bokk laa wax xoolal njariñu réew mi ak avancement wu réew mi lu ñu fi bëgg a voté te xam ne ñi fi nekk bu leen bu buñ ko fi tegee mu dem ci kanam nañ ko voté mu jàll. mais bolo yi ñuy bolo daaw gis nga li fi xew liñ fi bëggoon a bloqué ba gendarme yi dugg ci biir génne ñiy taxaw ci kaw micro gis nga sa waay dëgg du romb nopp nañu bàyyi seen affaire u tàppale yi ñuy def te xam ni réew lañ leen jox mm. réew buñ la ko joxee. doxalal fulaak fayda te bàyyi wax ji waaye ñu konti la jox réew say nit continuer ñee ngay saaga ñee ngay xase pour ñoom kenn warul wax ay waay sàmba yow nga opposé wu wax lu la neex ba jël réew mi nga ne keneen du wax te ñooñu dañ ne la sax ñun taluñ leen bis bu ñu jugee pour campagne ñoom ñoo jàpp date bi parce que jàpp nañ ni ñoom. 54 pour cent yu ñu amoon. ba léegi moo fi tege loola ak jeex ndaw yu bëri pare nañ ci. dëkk booy yi nekk booy yi ñu ngi ci leneen talatuñ leen sax parce que dañ naan mais ñii mais lan la la mooy problème bi quoi. yow 6 mois tegoo sama loxo dara bëgg maa joxaat élection pour ma joxaat la majorité nga ni léegi boobu mooy su boobaa lépp lu ma bëgg mu jàll jëla te woon bépp nguur bu ngeen jox fii euh, mu toog bu ngeen ko joxee majorité ensemble lu bëri lu ko neex lay valider. mais contexte bi mu doon waxee ak waaye contexte boobu moo fi am ba léegi man ni fii wax ji kenn mënu ko defaraat jéem ngeen defar ba sonn wax ji mënul defaru la nga waxoon tey yàlla jox na la lii mu ngoog ñaata nit ñoo dee kenn xamul yàlla rek a xam. fi mu nekk nii nañu ñaan yàlla rek yàlla teel ñoo jëlee ci ñii man da loolu laay ñaan man saa yu ma jullee maa ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad nguur gi yàlla nañ fi am benn mandat dem ku mën a ñëw baax na ci koo xam ni lii fi am du fi amati. ndax juróom-benn weer yi mooy continuer 7 mois 8 mois 9 mois 1 an mu dugg ñaata weer moo def ñu dugg 1 an 3 mois léegi ñu dugg 1 an de septième mois ñu ngi ñëw. léegi léegi bu ñu duggee 1 an après yëf yi takkar naa sa 2 ci weeru 2 ans. yëf yi di gën a tar teg boo yi dañuy gën di kaas nga Sénégal boo ko bëggee yor. Hmm. naxanteel rek def ni gars yi def ba jot ko waaye soo bëggee imposer wax leen sénégalais xam nga boo na ko yàllaa ngi nii tey di ko ko wan de. temps yi ñu doon teg série yonent bi ñu naan prophète la film du prophète boobu ñu doon wane ñu doon seetaan dañuy bëgg dañuy gis ak leer bi jàll ci image yi nii rek duñ xam ne réalisateur bi moo koy def de pour ñoom dañoo war a gis yonent bi tey <laughs> da ngay gis sénégalais yi dem uuf tele bi toog ko tiim ko nii pour <laughs> yaakaar bi xoolal pour ñoom yonent bi lañuy gis nii xoolal waxuma laak nag tey ñii tey jii boo fi toogee nga foog ni yow tey Sonko def ne ne quatre cent mille ke doon naan suñuy quatre cent mille dudd ju mbirum pétrole loolu yëpp gara ak gasa six mois xaar leen ci fan yi néew incha allah dans une semaine hmm. bu soobee yàlla le sept septembre bii dinañ leen woon projet bi tey le premier octobre jàppaleen loolu rek fu mu nekk nii daal ñi ngi xaar man da projet bi moom incha allah na ko Sénégal yëpp xaar la set te nag lu ngeen ci dégg bu mu leen bett ndax xam naa ni buñ ko waxee ba bàyyi. Ah. da xam ni quatre personnes sax binduñu ko. <laughs> mais yow xeeb gi fi nekk